ci yonentam bi tedd bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi sant suñuy ñaari waajur di ñaanal xalif général des mourides sëñ Muntaxa Basiru Mbàkke yàlla na fi yàgg te di ñaanal président Maam Moor Mbàkke yàlla na fi yàgg te di ziar kilifi fi toog yépp di ziar le coordonnateur de l'université Cheikh Ahmadou Bamba monsieur Sankara di nuyu di beral nuyoo le corps professoral maanaam jàngalekat yi di le secrétaire général le secrétaire de la commune de tubaab Mosquée monsieur Papsa ak délégation bu ma àndal ak kullu délégation bu teew fii yépp ñu ngi rafet lu seen teewal di nuyu di bergal nuyu ndongo daara yi fi teew yépp di leen wax axlan wa saxla dal leen ak jàmm fii si université Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké président Mamor sëñ Mamor maa ngi am mbégte cawarte ak pas-pas ñëw fii tey si sa pegg pour procéder à l'inauguration de la rentrée universitaire de cette université ah université bi nag ku ñu ko tuddee rek ku ko xamoon tamit dégg nga ko université Cheikh Ahmadou Bamba mu nekkoon ki nga xamante ni ki c'est le fondateur du mouridisme un Sénégalais bon teint amoon pas-pas lool si jàng xam-xam ak diine kon kooku bu ñu ko tuddee université war nañ ko tuddee université ah Sénégal sëñ bi foofu nga daanale sax foofu laa bëgg a tàmbali tuuti du réew bi nga xam ne bi kii séeréer la kii tukulër la kii manjaago la kii joolaa la kii saraxul la ndaxte Sénégal fu mu jóge ci histoire tàbbandi ci ay sëriñ Cheikh Oumar Foutiyou Tall Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké Mamadou Lamine Dramé ñu ñu ay sëriñ bi dañoo dox ci diine bi ñii jihaat nañu xeex ak tubaab bi ñii seen mission beneen la woon Cheikh Ahmadou Bamba beneen mission beneen mission la nekkoon Lat Joor Ngoone Latiir Jóob Alburi Njaay Burba Jolof Aline jigéen la joolaan buur Seyd Kumba Ndofféne ñooñu yëpp ay buur lañu wax ànd ak ay séeréer ñoo doon xeex ba tey jii donn gi nga xamante bi moom la ñu donn Sénégal devise mooy un peuple un but une foi un peuple un but une foi amul séeréer donc amul joolaa amul pël amul tukulóor amul majaago benn peuple c'est le peuple sénégalais moom la leen sëriñ gi bëggoon a wax léegi ngeen nekk donc si daara bi université nag daara bu ñuy sàkku xam-xam la daara bu ñuy tàggat ay kàndam Cheikh Ahmadou Bamba am na lu mu wax si murit jàng ba ne ar yaru ba ne nër xam-xam lumière leer bool bu mu war a nekk béréb bu mu war a nekk dafa war a set bu ñu mën fa toog moo tax ñu am yaakaar ma ñëw fii tey si turu ministre de l'enseignement supérieur Cheikh Oumar Anne de la recherche et de ñu orienté fi ay étudiants arabes fii si université bi donc am yaakaar la donc cette université est reconnue aujourd'hui lijaasa bu fiy tabbee bépp ndongo bu fi jëleen lijaasa rek na wóor ni lijaasa boobu mën na ko yóbbu fu fu solo njàngum arab admettre nañ ko sax léegi sa enam ñun nii enam la ñu génne waaye léegi ku am kijaas arab wan mën nga dem bokk ji ci concours ENAM bokk ci cadre yi nga xam ne bi ñoom ñooy jiite Sénégal te si yéen ñi lañ ko yaakaar ëllëg yéen yaakaaru Sénégal ñu fas yéene nag tàggat leen si université bii yàlla bu yaakaar tas waaye nag am naa yaakaar ni yu may gis yeneen université yi ay ndongo xëy génn si mbedd bi di toj ay kaar ay ndongo xëy génn si tali bi di taal ay pneu ay ndongo xëy lakk sax seen uni seen i du foofu la leen di xaar de Touba loolu amu fi yaakaar nañu ni yéen yéen ay nekk di leadership wan yeneen ndongo yi naka lay ndong di comporté loolu nag dinaa si dinaa leen ñaax yéen ndongo yi am na benn taalibe Serigne Touba bu mag le plus grand taalibe Cheikh ah Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra Fall grand taalibe di vénérer Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké paix et salut sur lui Il a dit, pour être un bon écolier, pour être un bon élève, un bon étudiant, même un bon apprenti, si vous voulez, un bon disciple, si vous voulez, il faut avoir cinq qualités. Duro, cinq qualités. La première, il faut avoir la docilité d'un cheval. La deuxième, il faut avoir l'endurance d'un âne qui ne se plaint jamais malgré la lourdeur du fardeau. La troisième qualité, il faut avoir la fidélité d'un chien à son maître. La quatrième qualité, la persévérance d'un chacal qui ne renonce jamais à sa proie. Et la cinquième qualité, enfin, il faut avoir la ruse d'un renard. macha allah kooku Cheikh Ibra Fall ko bind yàlla na yàlla yokk leer kon ñun soxlawuñu lu ñuy jéggaani ci ay fontaine effable mu ne su fekkee ni jàngkat ndongo ndongo daal bu fekkee bëgg namm na lu muy jàng bënn na am juróomi na làmboo juróomi qualité benn bu si jiitu mooy société fas fas nu muy nangoo borom rek xoolal mu fas ne amee doole waaye noonu la koy borom xale bu ndaw sax mën ko xëcc mu dem foofu la ñuy xaas yéen de ñaareel ba mu ne dangeen di am jikko ak ndëgërlaayu mbaam sëf lu la sa professeur sëf si si si xam-xam si coono nangu ko nga xam ne dafa bëgg si yow nga tekki ëllëg njàng neexul ñun nekkoon ne ay. étudiant jàngoon nañu man j'ai fait l'université Cheikh Anta Diop jàng neexul ñetteel ba mu ne da am fidélité d'un chien xaj xamul ku mu boromam bu leen xaj bu leen xam xanaa seeni sëriñ bu leen yor fii bu leen jàng topp leen leen rek beneen bi mooy la persévérance de chacun xam ngeen njàppaan bu fekkee mi ngi rëbb njanaaw bi nga dàq ko day dëppaat nga dàqaat ko day dëppaat xëy na kay jant bi bëgg kii mu commencé leer rek mu soog a dem waaye day topp di dëpp rek matt boobu mu matt ndongo war na matt waaye matt sàkku xam-xam exercice bii xaw ko du ma tëdd de du ma nelaw ndaxte comprendre ma ko su ma lekkee sax du sentir lu may lekk tant que mokk lu ma ko foofu lay ndongo di xaar wax ñeenteel ba xaw ma juróomeel ba taali bi nag dafay muus nag ñax étudiant dafay muus da ngay ñor ruse d'un xam nga renard euh, bàyyi ma bi nga xam ne bi la day si kii wu moom mooy représenté muus da ngay muus yooyu qualité moom la Cheikh Ibra wax ni ku ko làmboo allah kulli aal li ngay jàng dina bëri moom laa leen doon wax ngeen góorgóorlu si la ndaxte monsieur le président Sénégal dafa toll si béréb bu ñu tuddi sele ba yoon sele yoon nag dafay doy wax ñu nekk population bi nga xamante ni bi ay ndaw ñoo fi ëpp plus de quatre-vingt soixante-quinze pour cent des Sénégalais ay ndaw lañu ñu eh, nekk si jamono bi nga xamante ni bii man dama leen koy bari di tooñe sax génération WhatsApp ak génération Facebook ñoo ngi fees fii dell na génération WhatsApp génération WhatsApp ak génération Facebook waaye génération boobu lu muy tar tar tar tar am na li nga xam ne bu fekkee ne moom moo tàbbi si ndongo li kenn du ko mën a détourné mooy alxuraan diine kooku képp ki nga xam ne bi tàbbi na si xol ba pare ñu nàmpatal la si gisuma lu lay fëkk di la yóbbu feneen donc di yéen yéenay utiliser yooyu jumtukaay pour dox naka sa noonu du foofu la leen di xaar yéen xam-xam am na solo lool am na solo sunu benn baay Cheikh Hamidou Kane yàlla na yàlla may gudd fan ak wér moom moo bind benn téere bu ñu tuddee l'aventure ambiguë xëy na du ñàkk am seen ñu ko liir boobu am na fa benn pàcc si biir aventure ambiguë fu mu bindee baxte suñuy maam yi dañoo dajulu ko woon parce que man jàlloo jàllo laa kan jàllo laa ñu ñu ne dañuy yebal xale yi école tubaab bi ñu nekk fa di di xulo ñii ñu ne xam ngeen luy dëgg yóbbu leen fa doomu jaan yi ñun suñuy doom bu duñu ñu dem ngeen yóbbu leen si école bi waaye doomu jaam yi yóbbu leen si école tubaab bi déglu loolu lu baax lu may wax bu ñu demee def jotaay boobu toogaay googu waxtaan benn soxna su baax bu ñu tuddee la grande royale si pa jóg taxaw mu ne leen déedéet du noonu de ñu ne ah hmm? waaw mu ne ah nañu nañu leen bàyyi ñoom ñëpp ñu dem lan la fi wax mu ne laissons-le laissons-les aller apprendre l'art de vaincre sans avoir raison merci beaucoup laissons-les aller apprendre l'art de vaincre sans avoir raison nañ leen bàyyi ñu dem jàngi xam-xam te am na benn sëriñ yaakaar naa ni sëriñ Abdou Lahad Mbacke radiyallahu anhu moo ne woon xam-xam xaw ma ko bokk si boo ko xoolee rek loolu la firndaal foofu rek kon jàmbaar lu dem ñu ngi leen di féliciter di féliciter l'entrepreneur ak monsieur Gabriel ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñu tabaxal lu rafet yi c'est un bijou et que je pense qu'on en fera bon usage donc euh, vive l'université Cheikh Ahmadou Bamba Vive la ville sainte de Touba, vive le Sénégal. Je vous remercie.